Salut les amis de eSport TV, merci encore Guy de la confiance renouvelée, merci de les likes, merci de des abonnés, merci également du baisser du commentaire, un plaisir renouvelé, chaque fois de partager des informations, il y a un sénégalais fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal, à na wëngal cup ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci la l'hôpital yi sécurité du février. Nous sommes yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñuy wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi nga xam ne erreur judiciaire ak génn leen lu ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa tegaat leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xaar leen ajaleen fi daw si gars yi on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité gars en continu actualité bi tay dañ leen jox ay exclusivité gars yi fii ngeen koy géegee fala ngeen koy déggee feneen ak feneen ak feneen muy ki nga xam ne nag mooy Désiré Segbe meilleur ami Sadio Mané geste bu noble la Sadio Mané def abib Diallo ki marque contre Liverpool également ki di Malang sar direction Fulham loolu ay exclusivité la gars yi ñu leen koy jox notamment Segbe ak Malang sar mais d' abord félicitations également ñi nga xam ne nag mooy les Three Lions jigéen ya ah, donc waa Angleterre pour la première fois de leur histoire ñu gagné li nga xam ne nag mooy Coupe d' Europe dóor Allemagne donc deux buts à un les Anglaises donc sur le toit de l'Europe kay bi l'équipe def les anglais sur le toit de l'Europe bien entendu hein 1-1 le won gala ñu dem prolongation donc deux buts à 1 bien entendu donc suñu euh, l'équipe plutôt hein les les anglaises yi nga xamné gagné nañ trophée bi gannaaw ba nga xamné Allemagne mo éliminé France donc Angleterre ñeu jël trophée bi mais aussi hein gars yi di sigil di le monde du basketball Bill Russell est mort en donc en 2022 cette année ci donc tel la wàcc à 88 ans donc mom nak 11 titres NBA la jël ak ñi xamné moy Boston. N'est un grand monument du basketball. Wesley profana ak Dumfries ñaar ñi ñoy priorité wu Blues de Chelsea Thiès yi boog ñaar yi la fas donc teg ganna bi nga xamné Jules Koundé dem na du côté du FC Barcelone Wesley Fofana ak Dumfries le Hollandais qui joue aujourd'hui à l'Inter de Milan Wesley Fofana également aussi gars hein. donc du Chelsea rek mo ci nek parce que Paris Saint-Germain également mom lañ def plan B gannaaw bi nga xamné ñom Skriniar ba légui mi ngi tardé hein, et que li nga xamné Inter de mi ngi laaj dafa bëri Paris Saint-Germain mom fas ko ci def motax ki kii di Wesley Fofana profil nek profil bo xamné dina convenir à l'équipe parisienne mais aussi qui a amené Moïse CR7 Cristiano Ronaldo qui a renoué avec le maillot euh, donc de Manchester United tay ci match bi nga xamné tay première mi-temps le joueur. Hein. après mon nak voilà, match bi veux dire sax bay signé ay dédicace donc Cristiano Ronaldo de retour du côté donc des Mancuniens maintenant Rafael des wala du fa des la grande interrogation pendant ce temps également démb super coupe d'Allemagne waxon na len ki nga nak ne donc anti dieter Flick mi ngi fa ba match bi jeexee gis ngeen ko mom ak ki nga moy ne mooy Salihamidzic donc ñu nekk fofu di enlacé wu di wane aujourd'hui amitié bi am diggante euh, Flick ak aussi le Bayern de Munich parce que aussi c'est un des entraîneurs yoo xam marqué na histoire euh, Bavière bi pendant ce temps également un bilan qui inquiète tout à l'heure naa leen si jox ay exclusivité jox leen ay information par rapport li xew jamono ji ci Marseille Marseille. Kouman Nadef Gaï, comme on dit, Kouman Nadef, mais vous aurez les informations en temps et en heure, mais également avec tous les détails. pendant ce temps également, hein, donc Conrad Lafuente, la Valladolid mon waaj a les hein, fa lañ koy waaj a hein, donc c'est Espagne bi nga donc Marseille il n'a pas su faire ses preuves wala beaucoup de temps de jeu en tout cas c'est que sur moi d'aider day Espagne Espagne bi nga xam ne hein, faut parce que lui c'est un joueur euh, Barça il a marqué ses pas là-bas. 2023 sera une année décisive. Est-ce que Messi, Daidem, euh, Barça, ou Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, en tout cas, des Kobogo proposer prolongation, mais aussi à partir de, après la Coupe du Monde, Lionel Messi face à décision. Et aussi, la bonne nouvelle, moi, qui moi, Malang Sarr, pisté par Fulham. Fulham, n'a pas option, l'on les blues de Chelsea. Moi, l'an, moi, né, soit nous devons ko prêt, soit également nous devons vente brute. En tout cas, Malang Sarr aujourd'hui est prisé et que Fulham, nous faut que l'inga hamne taï, moi, une charnière centrale. Et je pense qu'occasion, vous parle, c'est là la possibilité possibilité d'y aller, Nadem Bagné hésitait même vous faites est prêt avec option d'achat là, parce qu'il a envie de jouer et que Malang Sarr aussi, beaucoup de gens jox nañ Aliou Cissé un accord ko pour nous li donc ci coupe du monde mais quand même comme on dit les places sont chères qu'on fait qu'il wanewul sa bopp rek doo mais aussi Habib Diallo qui marque son premier but bien bien compteur par rapport à la presse saison bi est et de la meilleure des façons et au meilleur moment contre les restes de Liverpool donc Moudougal euh, donc deuxième but deuxième but hein, donc c'est un somptueux but but le bon hein, c'est exceptionnel but digne d'un grand attaquant Abib Diallo bi nga xamné ne gars yi man limu bëgg rek moy limi club mu wane ko également au niveau de l'équipe nationale du Sénégal mais aussi est-ce que ci côté am la est-ce que utilisation bi koy defal la fi c'est question moy que dal au niveau de Strasbourg hybride de mille feux mi ngi dougal mi ngi def ay passe dé entre autres donc bu ñëw Sénégal aussi bu dougalé tay dina tok ay 3 4 mois de Dougal donc Abib aussi on te demande d'être constant mais aussi on demande à El Tactico de trouver une solution parce que c'est important hein, par rapport ak li nga xamné moy Coupe d'Afrique ak Coupe du Monde surtout biñu jëm Désiré Seck be ñu bari xam nañ ko c'est le meilleur ami de Sadio Kaiser magnifique Mané depuis 2009 2011 l'année de la génération foot depuis Bombe, il ne se sépare plus lui qui joue du côté de Bénin euh, donc équipe nationale Bénin le a moom nag dafa contrat amul Ben club mais Sadio Mané avec le cœur qu'il a ak xol am Sadio Mané wutal contrat euh, ak ñi Bayern de Munich réserve de Bayern de Munich lay signé contrat pendant deux ans deux ans de contrat Désiré Segbe nek donc le meilleur ami de Sadio Mané Faut gis Sadio Mané donc faut fay gis ba Sadio Mané demé Mallorca di waajal préparation bi pré-saison bi avant moy dem rejoindre club ñu don ndax day tok Liverpool wala day dem Bayern nekkoon si tractation ñoom ñoo entraîné ba Sadio Mané signé contrat également dellu Mallorca di entraîné ñom ñaar ñoo nekkandoo ndoon ba Sadio Mané war jël li nga xamné aussi mom moy donc Ballon d'Or deuxième sacre bi mom moko indil li nga xamné moy costume bi Sadio Mané sol c'est le meilleur ami de Sadio Mané et day wane né aujourd'hui Sadio Mané a un grand cœur d'affaire xol bu rafet du fàtte faté fàttewul ay xaritam et aussi c'est l'occasion pour gars yi wax ñep ku nekk sa xarit bi nga am delu ko parce que gars yi sa xarit deug moy sa ami d'enfance ñooñ ñoy sa xarit deug deug deug ñi si des ñep c'est des amis et tout mais le vrai amitié bi nga mëna am moy ki xamné xam fondo dorondo a ak yéen affaire et aujourd'hui Sadio Mané montre qu'il n'oublie pas ses amis d'enfance et aussi son meilleur ami Désiré Segbe gars yi ban gis-gis ngeen am ci geste bi Sadio Mané def également transfert u Malang au niveau de Fulham lan ngeen ci wax Habib Diallo qui marque gars yi et surtout gars yi tay le vote que le meilleur gagne un peuple, un but, une fois. On avance ensemble dans la machine sportive. Jargen Jeff.